ñaxtu bi tey mooy que ni sama naataango bi waxee mooy que dafa am loo xamante ni lu sensible la lu daw yaram la loo xamante ni kenn xalaatul woon ci jamono ñi ñu toll tey jii ak fi jamono toll dinañ ci dinañ ciy wax lu mel noo dañ ko dund muy mbir lu jëm ci ndox ak courant. lu toll ni poste santé kër sax kër sax boo ko coupé mu nekk lu doy waar mën nag kër gu ñëpp bokk. Euh, di foo xam ne dañ fay jaamu yàlla ndax di kër la boo xam ne santé lañ fay faj ay doomu aadama euh, ñu ñëw couper seen ndox euh, ba nga xamante maternité bi wax dëgg yàlla ci lañ ndox bi la ñuy liggéeyee amuñu lu ñu jëfandikoo nekk na loo xam ne lu sensible loo xamante ni vraiment doy na waar. ay tagga témbéte du du dem waaye nag li am solo ba am solo. mooy que ni dañuy ñëw njaaxaat leen xamal leen daal fii ak weekend bi fii ak jeudi vendredi nañ ko delloo si waat nu mu gën a gaawee poste santé yëpp lay doon te aussi comité de santé yi maanaam ni ñuy woowee CDS yi ñëpp ànd ñoom ci ci ci en masse à l'unanimité pour affaire bi régler